asalaamaaleykum tey dugub bu sama mbay lañuy ñuy waxtaanee ñu xool naka lañuy waajale ngir am ngóobe fu baax ak sama mbay ni pake sama mbay yépp nañu jiw suñu pake dugub ci tool bu gën jiw sa pake sama mbay ci tool bu am doole mën naa joxe lu tollook ñaari yoon li ngeen daan faral di am ak yeneen jiw yi ngeen daan jëfandikoo wante suñu ko jiwee ci tool bu néew doole paquet sama mbay du mën a joxe lu gën li muy joxe bu fekkee ni dañu def ci tool bu baax te am doole. nañu wóor ni tool bi ñuy def sunu dugub amul woon dugub ba mbokk ba basi ci at bi nawet bi ñu weesu. nañu jiwee ak disque juróom-ñetti te bàyyi lu tolloog juróom-ñeent fukki centimètre ci diggante tracé yi. ci fukkeelu fan ginnaaw bu ñu jiwee ba pare mbaa fukkeelu fan ginnaaw taw bu njëkk bu am doole bu fekkee ni dañuy faru dañu bay suñu tool ngir waajal saawum engrais mi dañuy wàññi palang yi ci tooba bu nekk woli bi lu am solo la nañu bàyyi ñetti palang ci tooba bu nekk ndaxte suñu ko deful gattax bu bari lañuy am ak guub yu tuuti suñu paquet dugub day ànd ak engrais NPK bindiroog fonde ak urée bindiroog suukar engrais NPK bindiroog fonde lañu njëkk a def su baax bi tooyee engrais bi nag ci tool bi am jiwu sama mbay rekk lañ koy def te it li ci gën mooy ci yaatuwaay suuf bu méngoo da yoppake bi bu mu ëpp bu mu yées bala ñuy ñàkk lu bari nañu def ci pegg tooba bu nekk benn comp ñeent baaraam te bàyyi di diggante tooba yi ak fi engrais bi nekk yaatuwaay bu tollook benn loxo benn comp ñeent baaraam ci pegg toobo bu nekk saa su ne nañu suul sunu engrais ginnaaw bu ñu saawee engrais bi ba pare lu ko mooy engrais bi day néew doole te ko nit dinañu yàq engrais bu mucc ayib juróom ñaareelu fan ginnaaw bu ñu saawee suñu engrais NPK maanaam bindiroog fonde ci la ñuy def suñu urée maanaam bindiroog suukar bu ñu fàttee saa su ne bay suñu tool ba mu set bala ñuy saaw suñu ay engrais te it nañu ko def ci baax bu tooy nañu def benn benn comp ñeent baaraam ci urée ci pegg tobb bu nekk ci dig-digal bu tolloog benn loxo nañu maytu bu baax ndaxte urée bi warul laal gàncax bi bala mu koy lakk sunu saawee sunu urée maanaam engrais bi liroog suukar nañu ko suul ak suuf bala urée bi di néew doole. topp tegtal yi sama mbay joxe njëriñ kese la dañuy jiw suñu dugub ci tool bi gën ak disque juróom te bàyyi juróom fukki centimètre ci diggante tracé yi. fukkeelu fan ginnaaw bu ñu jiwee ba pare nañu bay suñu tool ba mu set. nañu woli te bàyyi ñeenti palan ci tooba bu nekk nañu def benn comp ñeent baaraam ci engrais ci pegg tooba bu nekk juróom-ñaari fan ginnaaw bu ñu saawee sunu NPK su baax bi tooyee nañu def benn comp ñeent baaraam urée ci pegg tooba bu nekk fu soreek tooba palan yi lu tolloog benn loxo tool bu ñu toppatoo bu baax dina joxe ngóobeef fu bari bu ñu fàttee saa su ne nañu def jiwu yu mucc ayib yi ci suñu tool bi am doole. buñ ko doon jaay dañuy xool kilo bi ñaata la rek ñu jaay ko te kilo xam nga fi mu nekk dafa cher ay 300 lay jar wala 325 lii pour dund la mën nañu dundal année bi yëpp daal waaw falaa yi moom bëri na ndax cere ji moom moo gën a sax mais ay laax ak nekk yëpp dañ ko ciy defar ngurbaan mais boo seetee fi ñu dendal nii ñi nga xam ne amuñu sama mbéy ñoom amuñu dara dañ ne baax daal